wajalilaahi maskani tuubaabaat misras mi abijaayi xayri man abaat auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim salawaatullaahi wa salaamu alaa rasuuli wa aalihi wa sahbihi wa xadiimi assalaamu taalaa wa barakaatuh sëriñ Yaafe ñu ngi bu baax a baax ci turu Touba ci kanam ci njiital sëriñ Abibullaahi mu Cheikh Amadou Fadal waaye ci turu commission sociale bi nga xam ne ñoom lañu dénk ngir ñu taxawu askan wi comme ni ko ñu bëri xamee rek Touba ci kanam li ko tax a jug mooy lépp lu sëriñ bi ñaan ci xasidam googu ñuy wax Matlabul Fawzayni ci saayir ñu def suñ kemtalaay kattan bokk ci ñu koy jëmmal loolu moo waral ñaar téeméer yooyu ñuy laaj bokki taalibe yi waaye boo defaree dëkk bi itam day aajowoo ñi nga xam ne ñoo dëkk dëkk bi moo tax ñu tegoon lu mel ne commission bi nga xam ne moom la ñuy wax social te social mooy al infaq fii euh, mu doon loo xam ne nag lu waay man la bokkut ak ñaar téeméer yi nga xam ne moom lañuy yékkati jamono ju nekk ñu taxaw askan wi ci wàllu wér-gu-yaram ak wàllu dëkkuwaay ak seen yitte adduna yi nga xam ne dañ koy amee ñu def ci suñ kemtalaay kàttan barab bii nga xam ne moom lañ ñëw tey nag muy jumaa ji mu doon barab bi nga xam ne moo tax commission sociale sosu ndax commission social jumaa ja lañ daan wax social jumaa ja mhm. nga xam ne jumaa ja képp moo ko taxoon a jug mhm. muy daaray kaamil ji nga xam ne moo nekk jumaa ji ni nga xamee ni mbirum sëriñ bi nag boo koy defal te jaar ko ci alxuraan barke ba ci borom di def nag moo law ba agsi ci ñu man cee boole ñu dëkk-dëkk bi ak yeneen yi nga xam ne moom ngeen gis ñu koy def mhm. waaye liggéey bi di ko taxoon a jig ca cosaan ca dëgg-dëgg mooy jumaa ji rek eh, ñu ànd koog yéen ñi nga xam ne yéen a jiite daayira Muxaddamatul Xidma bi di def liggéey bu am solo sëñ Abdoul Ahad Bousso Cerno ak sëñ Abdou Lahad Bousso Maxtaar sëñ Abdou Lahad Bousso Mam Assa ak mboolem ñi ngeen ko àndal ngeen di taxaw taxawaay boo xam ne nii bokk na ci ñaanuk sëriñ bi ndax sëriñ bi waxoon ne wal tusbitan fihi jamaahatan tuqim asalawaatil xamsa dahaban yaa hakim mbooloo muy taxawal julli faaw mu am ñoo xam ne ñoo leen di teg ci yoon bërëb ba ni jullee ñu koy setal ñay organiser sar sar sàppe ak yooyu kon jamaaha boobu day mel ne mooy muxadamatul xidma rôle bi ni def ak li sëriñ bi wax ne wal tuddi xolal musliha fii yaddi wa fii daari wa sabitanhu bin haadil wa fii muslihoona wala muslihiina ya mooy daayira muxadamatul xidma kon ñëpp a ci war a jàpp moo waral tamit Touba ci kanam li nga xam ne baaxoo na ko def ci jamono ju nekk waaye rawatina ci koor bu defee recensement bi muy def ngir jàppale askan wi mu am ab cër boo xam ne nii da koy indi fii jumaa ji indi ko ci tamit ci yeneen ci daaree kaamil yi nga xam ne nii ñoo nekk ci dëkk bi tàmbalee ko ci daarul moxti daarul xudóos daarul minan daarul salaam bàkki xewar kese ñu soñ ba àgg njaareem yitte ji nga xam ne moo tax ñu ñëw fi tey jii di ñaan liggéey bi nga xam ne moom leen sëriñ bi sant te mu doon liggéey boo xam ne ni ñëpp la war eh, suñu borom defal leen ci ngeen dëppoo ci ngërëmul sëriñ bi ak tawfeexam daara kaamil ji nga xam ne moo nekk ci biir jumaa ji itam ne ci dëgg-dëgg commission sociale bi moo ko taxoon a sosu yi nga xam ne am nañ ko ak naal yi nga xam ne am nañ ko ci ñoom ñu dem ba ñoom ñëpp ñu àgg ci yoral leen seen i kër lañ fa woo lépp loolu tamit ñu ngi leen koy ñu ngi koy ñu ngi leen koy sàkku bu baax ngeen ñaanal ñu ko baax a baax wane gi ñu koy wane jubluwuñ ci dara lu dañuy wax ne Touba Ca Kanam moom laaj lu am def ko fu ñu xam te nit ñi ñaare buñ la joxee seen alal tamit dañuy yebal seen bët mu topp mu topp mu topp alal ja kon tamit dana baax nga wan leen fan koy def waaye xam nañ bu baax ne eh, ki nga xam ne mooy joxe ci yoonu yàlla loxoom day jooram càmmoñ ba sax wurta xam la muy joxe waaye nag allazina yunfiquuna amwaalahum bi layli wa nahaari sirran wa alaaniya ñoom ñaar ñëpp fa lahum ajruhum inda rabbihim wala xawfun alayhim wala hum yaxzanun kon ko suñu borom nangul te lépp tamit ñu am ci ngërëmul sëriñ bi te tasee ci tawfeexam te yàlla buñ ci gis suñu bopp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi wa kafa wa salaamun ala ibadihi alladina stafa asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu sa Mouhamadul Mourtada ñu ngi lay delloo nuyoo ci turu sëriñ Afia ak uh, daayira turu daayiratu Muqaddamatul bépp kilifa yi nga xam ne ñoo teew ñëpp te bokk ci daayiratu Muqaddamatul Xidma di nuyoo ci sëriñ Habibullahi moom Cheikh Mouhamadul ak kilifay Touba ci kanam yëpp di am mbégte mu rëy ci dajawaat ak yéen ci barab bu tedd bi ci taxawaay yu am solo yi nga xam ne naka jekk yéen a ngi koy taxawee jëmee ko ci barab bi muy li nga ko waxee léegi te ñun ñu gis ne barab bi lépp lu fay def rek ñun la ko dimbalee ak fu ko fi mën a def rek ñu yàgg gis seen i taxawaay nag ak seeni i jëf yu mat yu rafet yoo xam ne yéen a ngi koy jëmee ci euh, waaju jumaa ji mën naa ko waxee waa jumaa ji ñëpp rek muy daayira Muxaddamatul Xidma muy euh, daaray Kaamil muy imaam yi muy noddkat yi muy képp koo xam ne mi ngi yëngu ci jumaa rek lépp lu ci waay def mën nañoo jàpp ne ñun nga ko defal ndax bu lay seenu yéene ñu nit buñ ko mënoon mooy kenn ku nekk ci ñoom ñu wutu la ci sa kër na nga fa war a taxawee lépp nga di ko taxawee kon lu ci waay def rek dañuy gëm ne ñun ngay sotle waaye barab bi nag ni nga ko waxee day barab boo xam ne euh, mooy xoolub murit yëpp di xoolub Tuubaa itam di barab boo xam ne kenn ku nekk kuy yëngu ku nekk te bëgg sa jëf barkeel da nga fa xalaate jëm gis nañu sax ne kilifa yu mag yëpp yi nga xam ñoo fi wut Sëñ Tuubaa kenn ku nekk buy tàmbali ab liggéeyam ci fii la koy tàmbalee kon ba ngeen fi tàmbalee seenu liggéey rek booba ngeen ci waroon a séntu barke te xam ne barke dana ci am te jàpp nañ ne loolu mooy li sabab barke bi am ci ba mu toll fii mu toll ci social bi nga xam ne yaa ngi ko yor ñu dee la sant nag yow ci bopp ak ñi nga seqal commission sociale bi yëpp ci taxawaay yi ngeen am ak gis-gis bi ngeen am ci barab bi ak yéene ji ngeen ci am ak sonn gi ngeen ci sonn ngir lu lu taxawu ñi fi nekk loole it fi nekk yëg nañ ko gis nañ ko rafet nañ ko bu baax a baax ñu ngi leen ci sant bu baax di leen gërëm Touba ca kanam nag ak euh, Moukhaddamatoul Khidma mën nañoo wax ne dañuy benn ndax ñi ngay kanam yi ngay gis ci Moukhaddamatoul Khidma ñoom ngay gisaat ci biir daayira euh, euh, nooru daara yi Touba ca kanam ñi ngay gis ci Touba ca kanam itam jëmm yooyu ñoom ngay gisaat ci Moukhaddamatoul Khidma nit nag dafa mun ta seere boppam ginnaaw noonu ñëpp yàlla dafa dogal ñu bokk foofee bokkaat fii Euh, jëf ju mu mën a doon rek buñ dikkee la ñuy man ci turu daayiratu Muxaddamatul Xidma mooy nangu jëf ji ci seen loxo jëbaleel leen ko Sëriñ Tuubaa defal leen ko ci liggéeyu waaye ngeen yëg ni ñi ko andi ak ñi ko jox ñoo bokk ñoo bokk nekk foofa waaye ñoo bokkaat nekk fii itam yéen ji it benn la pas-pas benn la nañ ñaan rek Sëriñ Tuubaa boole ñu nangul te li yéene yi lépp ñu mën koo matale ci barkeem ñu ngi leen di sant nag di leen gërëm bu baax di wax ne jëf gis nañ ko rëy na lool euh, rafet rafetlu nañ ko sant nañ leen ci bu baax gërëm nañ leen ci di ñaan Sëriñ Tuubaa nangul leen te nangul nu te nu teewaat ko negeen déwén kenn bañ a manqué ci barke Cheikhul Khadim yallaahu yaa waabu yaa ala rafiq di yaalukan al yawma anfa tariq bi hurmatil mustafa al muqarrabin wala li wasabi rajabi